ñu ne Sédhiou gaaru ceer bu bees lañ bëgg bu moderne boo xam ne day génn si dëkk bi dem si entrée dëkk bi moom lañ bëgg parce que suñu gaaru ceer bi gis nga ko si tawee muy mel ñun nag góorgóorlu nañ def nañ ci lépp mais muy ñëw goudron gaaru ceer bu mënuñu koo pavé kooku nag état lañ si xaar mu jàppale ñu si parce que bëgg nañ ay oto yi climatisé di daw Dakar Sédhiou Ziguinchor Sédhiou Kolda Sédhiou parce que vraiment développement transport dafa jot. li ñu bëgg c'est en cinq ans ñu le parc automobile Sénégal notamment le parc automobile de transport public loolu nag gis nañu source de financement Nous ñu ngi ciy waxtaan ak ministre des finances Nous avons ne bu ñu taxawalee fond bi dès les premiers mois de 2021, nous avons le un renouvellement parc bi dinañ ko def de manière intensive Nous nga xam ne dina parc de Ziguinchor am parc yu baax dëkk bi Sénégal parc automobile bu baax renouvellement parc bi dañu koy avec la professionnalisation des acteurs du, transport faaw nag bu lay jox oto bu bees contrat bi ñu gis ne contrat boobu taxaw na chauffeur bi nañ ko caisse de sécurité sociale utal ko assurance te bu buy ko protéger temps de repos chauffeur transport bi nga xam mooy chauffeur bi nga xam ne dañuy def protection sociale bu mat sëkk mooy chauffeur boo xam ne salaire am ak contrat am garantir nañ ko chauffeur boo xam ne dañ koy garantir cotisation sociale chauffeur boo xam ne bu liggéeyee 30 ans 40 ans jël retraite mën a toog këram jàppale njabootam pension retraite am di ko fekk si biir këram loolu yëpp bu ñu ko jëlee nag pour indil leen ko pour protéger leen olof njaay ne na ndimbal na ca fekk loxol borom maanaam yéen nit ngeen gën a góorgóorlu changement de mentalité xam ne ay bakken ngeen yor ci seen oto yi doxee noonu taxawee noonu ci yar ci teggin ni ngeen di recevoir client ni ngeen di jàppale client yi ni ngeen leen di respecter loolu aussi ce sera la contrepartie li ñu bëgg chauffeurs yi am ci protection noonu la ñu bëggee aussi clients yi les usagers de la route am ko aussi ci respect ak qualité des services qui leur sont procurés. di le président Macky Sall ak gouvernement waa Sédhiou nee na de par ma voix jërëjëf jëf. parce que nit da ngay mën a wax merci da ngay mën a wax jërëjëf loolu jullit sax yàlla sax loolu la sant moo tax maa ngi leen di en tout cas ci sama tur turu population yépp maa ngi koy gën